te di réserver nag une mention particulière à un homme je pense que j'ai pas besoin de le citer pour le remercier mooy le président Ousmane Sonko koy defal dañ ko ciy ndokkeel ci gis-gisam ci détachement ci désintéressement am ci xalam bu ñor ak ci xalaatam yu rafet yoo xam ne moo tax ñu taxaw coalition Diomaye Président moo tax projet bi am candidat ba sénégalais yi amoon yéene jëmal projet boobu ba xool promesse yi ci nekk yaakaar bu mu jur naka lañ ko fas yéene doxalee bu nekkoon kenn koo xamante ne rek day wax ne man kese bu dul man du doon keneen ci gannaaw kon loolu du mën a am waaye yemul ci loolu yemul parce que dafa takk ndigam takk ay dalam sol yéeram yendalul fanaanalul guddeeg bëccëg subaak ngoon soit ñu ànd soit mu jël axe ma jël beneen axe muy battre campagne matin au soir 6 heures du matin ñu koy gis muy battre campagne 2 heures du matin ci bëccëgu ndar kam ci suba teel donc jaar na fu ne def na lu ne te lu ci nit ñi gis rek ci lu fës nañ xam ne lu ñu gis mu def ko ci lu fësul moo ëpp solo ci lu waral résultat bii tey kon mënuñu ko bañ a beral loxo te bu ngeen seetloo saa yu may jëf prise de parole dama koy mujjee pour que nit ñi doon bu ñu dee tàggoo nit ñi nekk lu ñu mujjee retenir parce que bokk bëgg naa bu nit ñi retenir dara ko loolu bokk loo xamante ne ci discours bi nu mu gudd gudd wala nu mu gàtt gàtt loolu du bokk ci lu ñu fàtte kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan may ko wér-gu-yaram ba yéene gi nga xamante ne ak ñu ci àndal yépp ci liggéey bi am na ko ci ñu mën ko doxal ci senegal mu Sénégal Sénégal bu naataange Sénégal àdduna ak euh, ñu ko teg ko tamit ci loxo yoo xamante ay loxo yu wóor la combat yi nga xamante ne daan nañ xeex mu doon combat yoo xamante ne génération la mais du doon combat prochaine génération bi parce qu'il nous faut avancer résolument vers le projet progrès économique social et culturel lii moo nekkoon li ma leen bëgg a jégal ci kanam am leen sant bu baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah